waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna mbaa yéen ngi si tawfeex gaay mbaa yéen a ngi si jàmm en tout cas man maa ngi cool maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax bon euh, di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois gars yi dafa am ay vidéo buy circulé benn artiste boo xam ne ñëw na Sénégal comme d'avant ay daaju ay dayik ay xaw ma lan façon bu nekk Sénégal lañ leen di découvrir quoi oh, ñun ñu bëri na xamuñu leen booy mbocc mbocc yi nag ñoo leen xam mais la <laughs> majeure partie des Sénégalais j'en suis sûr que ni xamuñu leen quoi même ñu nekk si diaspora bi sax xamuñu leen parce que ils sont pas des personne yoo xam ne dañuy siiw léegi na Sénégal mooy dëkk bi nga xam ni euh, ñun ñooy les cobayes quoi nekkatul Afrique de nekkatul Afrique Sénégal mooy léegi cobaye monde bi. maanaam jëf ju bon bu ñuy indi Sénégal lañ koy indi kuy siiwee su lu bon su nekk Sénégal lay siiwee kuy def lu bon lu nekk senegal nga koy defee képp koo xam ni bëgg nga dem li nga xam ni moom moo di paradis nekkatul Thaïlande wala wala wala Bangkok waa Bangkok sax mooy Thaïlande wala yenn dëkk yi nga xam ni jëf ju bon rek ay Brésil ñoo fa ne non non la Sénégal mooy dëkk bi nga xam ni ñëpp mise nañ ñi képp koo bëgg foo képp ko bëgg def li nga xam moom moo di safaan ñëwal biir Sénégal ci biir dëkk ñi ngeen jàppee les ay taeg genre yooyu noonu yii xam nga américain kañ lañ ko doon def mooy jamono ay ñoom Trey Songz jamono ay ñoom ay ñoom Usher lañ doon def seen affaire yooyu noonu ñëw xool dafa démodé sax état dafa démodé si yeneen dëkk yi français rek ko dese maanaam ñag yi rek ko dese ñag yi rek ñoo ko dese mooy maanaam sénégalais yi nga xam ni wala ñag yi nga xam ne ñu ngi juddoo France nekk France nekk fa ay artistes ñooñu rek ñoo ko dese mais les anglais xam nga eh, eh, yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi États-Unis wala ñi nga xam ne dañ carrément nañu mën a ay arène bii la ñuy def defatuñu sax ay jël ban teg si kaw kii xam nga di feccloo nit ko léegi eh, nag booy bi ñëw na Sénégal yi di laajte ndax sénégalais la wala du sénégalais gars bi si boobu moo ne damaa soxla benn jigéenu Sénégal quoi boo xam ne woy bi faw ma woy ak moom. léegi dama leen décortiquer benn affaire boo xam ne faw ngeen xam ko xale bu jigéen bi colinam xam nga lan lay signifier mooy maanaam waa ji xool na si public bi ki gën a solo solo bu bon maanaam doomu doomu Ayda Ayda Ayda Njaay bi moo gën a so ah kii de doomu Ayda moo gën a solo bu bon doomu Ayda Njaay parce que je dis bi moo gën a solo doomu dëggeen parce que doomu dëggeen villageoise la quoi mënu ma ko yéegal di présenter parce que day yàq sama image. doomu Ayda Njaay bi nu mu solo nii ça veut dire que ne war na nekk nit ku bon ko xam ni lu ma ko laaj mën na ma ko jox quoi te jii nii su ma ko nee mu juutu ma mu juutu ma su ma nee mu def ma lii mu def ma lii xaar ma choisir doomu Ayda Njaay mu choisir doomu Aïda Ndiaye doomu Aïda Ndiaye yéeg toog doomu Aïda Ndiaye bu mu yégee toog waa ji commencé woy tourné si doomu Aïda Ndiaye ne ko kaay kaay ma brosu la kaay ma tatafu la tataf boobu nga xam ne ndaw soos noonu ko defoon fa nga xam ne moom moo di si bus mu mer waa ji ko ne ko kaay la li tax mu dem si waa ji mooy maanaam loolu la ñuy wax complexe d'infériorité parce que gaayen bii nii bu demoon France wala yeneen dëkk yi nag nit kaa ma yéegal la dof yi rek ñooy yéeg mais ñi am xam dañu am sens normal du ñu yéeg mais comme que Sénégal lañ nekk dañ nekk ben dëkk boo xam ni en mode de développement bon la ñu nekk mooy maanaam pour ñun faaw ñu bon pour ñu bokk faw ñu solo solo yu bon faaw ñu li léegi nag lii lan mooy conclusion mooy képp koo xam léegi day demaat si concert u Taïk si concert u diw si concert u diw si concert u diw pour tey mën ko yéegal si li nga xam ne moom moo di scène bi wala pour waa ji nii xaw ma Lewis mën ko yégal teg ko si kaw scène bi pour daju mën ko yéegal teg ko si kaw scène bi di ko def loolu lu ko neex faaw mu solu solub caga quoi te solub caga boobu noonu jëlee ñu ko fenn si suñu artistes si jigéen ñi nga xam ne ñoom pour ñoom dañoo moderne moo tax ma ne leen Sénégal ñun ay cobaye lañu cobaye la ñuy mës a doon xam nga naa neo naan néocolonialisme néocolonialisme du ay tubaab ñoo ñu ko def de suñuy moroomu africain yoo xam ne ñu ngi dem si tubaab yi seen tubaab yi jàngal leen ñoom ñooy ñëw Sénégal di ko def li nga xam ne moom moo ñeneen ñi nga xam ne dañoo inférieur ñoom mooy maanaam négro de maison yi mooy maanaam ay ñoom Taïk ñoom maître Gims ñoom Daju ay artistes yooyu nga xam ne ñoom ñooy ay Fally Ipupa ñooy négro de maison yi ñoom ñooy ñëw si négro esclave yi nga xam ne ñoom lañ jàppoon encore exemple mooy doomu villageois yi doomu ñu amul xaalis yi doomu sénégalais ñoo ñëw ñu ñëw di leen def lu bon maanaam tubaab bi liggéeyatul dafa am benn dafa am benn proverbe bu bon boo xam dama ko dégg temps proverbe bu raciste sax mais proverbe boobu noonu boo ko dégloo bu baax da ngay xam ni lii dëgg la waa ji nee na si benn jour nit ku ñuul li mu yor si lu weex bëriwul waaw looy gis si lu weex si nit ku ñuul bëriwul gars ne ko waa lan la mu ne lii moo weex suufu tànkam ay bëñam at ay bëtam mais li gën a am solo mooy mooy maanaam patron am patron d'esclave tubaab la mooy maanaam tubaab bu weex mooy mooy mooy patron am da ngeen gis ay ñoom daju yi nii seen industrie yi nii mooy ñi nga gis nii seen industrie bu leen foog ay noir ñoo ko nekk di gérer de bu leen foog ne ay noir ñoo ko di gérer la majeure partie de ñi nekk si ginnaaw ñi nekk si kaw ay tubaab lañ parce que ñoom ñoo leen di financer ñoom ñoo leen di xëcc dugal leen seen étiquette yi di léegi lan mooy seen rôle mooy ñu ñëw si Afrique continuer di conqui conquérir li nga xam ne moom moo di Afrique continuer di xeex li nga xam ne moo di Afrique pour ñu bañ am li nga xam ne moom moo di mentalité bu juste pour ñuy continuer di lekk si kaw li nga xam ne moom moo di suñu réew boobu mais malheureusement ñun dañ siy tombé léegi nag dégâts yooyu ngay gis ay ñoom daju ñëw nañu Sénégal pervertir jeunes yi xam nga sénégalais itam entre ñuy pervertir encore ñuy gën a yokk li nga xam ne moom moo di xar mi karaw ñuy gën a bonloo li nga xam ne moom moo di suñuy doom si nga gis léegi ay sabar bu njëkk ba ban jigéen ban jigéen moo daan xaar moo daan fecc sabar ah, tëggkat bi ñëw di tàpp taatamii quoi comme vidéo bi nii ban sabar Sénégal moo doon am xale yu jigéen yi di juutu tam tam fecckat bi maanaam tëggkat bi di tàpp li nga xam ni moom moo di taatam lii striptease lañ ko doon gis nee naa la Sénégal en la jëm. lii léegi nga gis gars yi commencé ubbi li nga xam ne moom moo di ay kii paa yi wala policiers wala ñi ñu retraités yi wala waree ba sénégalais yu bon yi dem di fa dugg di fay seen li nga xam ne moom moo di xaalis yi dëgg bu pauvre. jamono ji dans peu de temps ay Wally Seck nii ay concert Wally Seck nii ay concert Mia Guissé dootul xewati de ay concert lëmbal taat mooy xew ay xale taxaw si kaw ay baal ñu leen di fay xaalis. ñu leen di fay xaalis ñuy lëmbal gannaaw léegi gratis la ñuy bàyyi ñuy jël seen loxo di tàpp seen taat sax xamtuma laa ñii boo leen joxee xaalis. te li ma si gën a métti mooy si ay sabaru mariage wala si ay tànn béer wala ay kii la ko gars di gis ma maanaam nday ak baay ni jaay dañuy xale bu jigéen bi moo wane ah, ñi invité yaa ngi woon foofu ay mu mag ñi taxaw di leen lëmbalal gratuitement xale bu jigéen bi tamit mu ngi lëmbal tëggkat bi di dóor li nga ni moom moo di taati ñëpp di si kontaan parce que tëggkat bi moom loolu lay def. loolu mooy business am léegi xale bu jigéen bi nii mu ngi préparé mu ngi en mode stretching échauffement pour mën a dem def li nga xam ni moom moo di cagatu parce que loolu cagatu la. maanaam jaay sa yaram jaay sa koor ñuy laal sa yaram moom après ëllëg si biir ëllëg si biir ñu gis nag ay féministes yu jug naan ah kii war naa lëmbal te waroon laal taati yi kii war naa lëmbal te kenn waru ko violer kii war na provoquer nit te kenn waru ko violer loolu ngeen ni mujjee dégg après gars yi c'est Sénégal man moom sama wax lii moo tax mënuma am view yu bëri xam naa ko man lii moo tax mun nit bugguñu ma mënuma am ay view yu bëri mënuma ko am du ma ko du ma ko mës a am et je suis conscient de sa mais xam naa ne la majeure partie dañuy déglu li nga xam ne moom moo di samay vidéo conséquences yooyu noonu tamit ñooy jur ay xale yoo xam ne parce que boo xoolee néeg bi nii ak prise bii nii nga xam ne lii Sénégal néeg beeg prise bii nii boo xoolee nga xam ne lii senegal la lii Sénégal la doomu daba gi daba kii daba yaayam daba la tudd leer na ma <laughs> doomu daba la parce que sénégalais la xale bi jël li nga xam ne moom moo di yaramam te ko si ay góor di ko filmer muy lëmbal si kaw ay góor kii kenn xamul lan lañ ko def après kenn xamul lan lañ ko def après kenn xamul ban liberté moo nekk biir Sénégal kenn xamul jëf ju bon gi nga xam ne gaa yaa ngi koy def ni ñi di ko bàyyi cëy mim réew avec ça vous nous vous nous saoulez ak ay politique ay ay Barthélémy Dias ay xawma lan lan te seen dëkk yi seen doom ñu ngi pervertir ñu ngi gën a nekk li nga xam moom moo di ay doomaram ay mbaam ngeen jégal ma si kàddu bi ngeen ñuy sonal ak seen politique bu soof bii nii ngeen ñuy sonal ak seen politique bu bon bii nii boo xam ne ñetti affaire lañ si am ay saagakat ngeen jur la muy parti opposant muy parti public ay saagakat ngeen jur ay nit ñoo xam ne jëf ju bon la ñuy def ngeen jur ay nit ñoo xam ne wax ju bon lañ ngeen jur ay nit yoo xam ne dem ba waaye yow yàq li nga xam ne moom moo di suñu réew dëkk boobu ngeen foon dina développé si lan lay développé dëkk bi ban kaa ngeen ko mën a développé ñii ñooy jeunesse bi nga xam ne ëllëg si biir ñoom la ñu yaakaar fan la mën a développé ak ban président moo leen mën a tette bañ développé amul. amul benn président boo xam ne sera capable de waa yow yor li nga xam ni moom moo di réew bi parce que réew bi dafa bon léegi réew mee bon Sénégal moo bon léegi mooy image bon slogan bon. fekk ceewaay dëkk bu bon a ngi nii. te kenn du si def dara ngeen di toog chaque fois di xool seen i doom di cagatu ñu nekk ay caga ngeen si fier wasalaam